كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ولما بلغ أشده Je ne yëpp pas naa C'est la RTS. loolu oui, mais me pour kontaan nañu tabaraka si Malick si barke góor gi lan la fazer na si Malick non c'est devant c'est bon les photographes on a reconnu tout là fazer o que hey, ce fazer Fidelit ak turu kilifa yi fi ñëw yépp ñu ngi lay dalal jàmm xam naa la nga waxoon waaw wa kullu fatan adda ila albirri xaqahu يود لقاء الأصدقاء بك الجمعة waa c'est une délégation Moulifi. Ou à la Guinée une délégation Moulifi. Ou à Mauritanie une délégation Moulifi. Ou à Gambie une délégation Ou à Europe la France c'est une ya ci seen njiitalu président bi Mauritanie ñoo ñaanoon ni pant bi ñoom ñoo koy def ngir yàlla niñ nga toll ci ñoom sa njaboot ya nekk Italie seeni délégation mu ngi fi caméra professionnelle yi mel ni yu télévision yëpp ñoo ko jëndi ënd ko ni ndax day nga noonu ci ñoom waa États-Unis sa njaboot ya fa nekk ñoom it seen délégation ñëw na kon nag li ci des ci famille yi fi ñëw ak kilifa yi fi teew ak ñi sonn ci yëf yi ba mu toll nii sunu jur bu tedd bii Sëriñ Pape Malick dana leen nuyul ñi fi teew dina la sant li nga bëgg ñu sant waaye itam rek dafa mel ni goru diine yu baax yépp yonent bi moo leen sonal moom mi leen ñaan ni leen taxallaqu bi axlaqillah na ngeen amee jikko yu nuroo ak jikko yàlla yi kon nag ñi jéem a jikko yu nuroog yu jikko yàlla yi ña ca gën sonn mooy ña tibbe ci sabaqat rahmati ghadabi koo xam ni bala koo mer di gane yërmande dina ko gane ba noppi ku mel noonu ci jamono bu mel nii ku ko gis ne ko masa waaw xam nga lu tax ñaar moo tax bu jëkk bi سيدنا معاذ بن جبل معاذ بن الجبل دفت توك تي ويت يونت بي صلى الله عليه وسلم du wiccax bopp bi rek di wiccax bopp bi rek معاذ بن الجبل دي ويتاح بوبي بيانتي بي صلى الله عليه وسلم ñi mu ni ko yërëm ña nar a ñëw te nar a yenu lii ñu yenu mu ni ko lu tax mu ni ko ndax ñuul sax ci jamono bii ñu tolloon nifaq dafa lëjal ñépp waaye munafiqina yi ñu dajale yàlla dogal na amuñu sañ-sañ amuñu dogal te lu mu bon bon am nañu kersa mu ni ko waaye ñay ñëw ëllëg di continuer mission bii munafiqina ya ñuy dajeel dañuy am sañ-sañ am dogal te dootuñu am kersa seen jëfin yëpp jëfinu màttay lay doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaye ñooña yéen bu leen yàlla fayee fukk ñoom juróom fukk la leen di fay ndax raar ga muy raar ci seen jamono moom bii toog sa yit cheikh mu wax ñu fii ci kër jëmb fukki at ci ren mu ni ñaaraam ku amee sa dëgg te mënuloo wër di lay ak ku amewul dëgg te mën a wër di lay waaye gis nga mën a wër di lay am lu lu ko gën di farata moi ni fi toog Les li ci seen xol yi nit mënul wax lu nitam xamuloo ni amee nubuwa amee wilaya am na lu ko ëpp doole moo di nga bañ jaawale sa kilifa ak kenn nit ku nekk noo fonki sa kilifa noo ormale sa kilifa noo terale sa kilifa par force yal la jok la, nyou la def nan. Tel liwi moun yu wour, goun kofek ke woulit, mak yu doul fene, wak men yu kou. Mwen yaw, se di gen te aksur yi baba kersi. Ni nan fwe kulip, ham men yu nen yu, gen masadev tibir, mwen gen masadev tibidhi. masuloo ko weddi masuloo tàngal xolam lu mu bëgg def nga cam ba def ci lu ëpp te waxantu ndax yonent bi moo leen yóbbaale géew ci la yantiqu anil hawa li ñu koy xamal mooy lu jamono yaatu yaatu yaatu lu mu dox dox dox am na koo xam ni du weddi boppam te li ma wax mel ni itam am na koo xam àdduna du ko doxe mukk ba mu weddi boppam te nag ba ñu nekkee ndaw la ñuy taseeg waraqaat yi waaye waxoon nañ ca Tiwaawoon waraqa ba aju woon ci sa digganteeg sa turandoo waaye tey waraqa bi moy bi dox sa digganteeg Serigne Babacar ya ko waxon abuna abou bakri wa in kana fi lqabri radina bihi shaykhan ila akhir axiri dahr liman antami إن لم يكن لجنابه بمن أقتدي إن لم يكن بأبي بكر فخلى لك جو القلب يا طير حبه فبيضي بخير واصفري أسعد الطير لطيف بنا في النفس والروح ذكره والطف منه فيهما نكته الذكر يزيد علينا اخذه وهو غائب فاكرم به من غائب وهو في الحجر فتى عاش محمودا ومات محمدا ففي حالة يهدي وفي حالة يقضي كنا تربى على هاتين إرثا ونشأة كريما وفي هاتين رمز من السر كنك أخلايا إن أحسنتم غير وصله فدونكم وعهدي ودونكم وصري حملني بلاء على أهل الطريقة سخطه بقول من الحبر الذي أعظم الحبر كنا كبركنا أكبس بطن وقانا به الرحمن كيد عدوي ونجى به الأصحاب من قبضة الشر بأحمد بالمحمود بالختم بالرضا وبالمصطفى بالمنتقى بالهدى البدري كفانا لباس الخير أن كان عهده كنا لدينا ثنيا في لباس من الخير رمى فأثاب الصيد كل إصابته فلم يبقى إلا أن نقابل بالشكر سماحته تغني المريدين عن ندم ورأفته بالمؤمنين عن السيرين يمينك لا أنسى يمينك دائما أبا الفضل ما لي غير ذكرك من ذكري بوب يلا عند عندك نيون يبالي بيرلك إن شاء الله waxuma la sunu diggante ak moom de sunu diggante ak yow laa wax def ba ca des itam ngeen déglu tuuti am na solo parce que Sénégal xamul lu xew mais wolof moo wax ni ku war ñey ba wàcc ko loo warati mu tuuti dëgg la wala du dëgg والنكد wa ya wa ara nisaa al hayy ghayra nisaaha gis ngeen ki ka mu moy borom bore kaare ba di tok ca te du ca fayda ja ca xam bopam ken du ko jangal lu war def boole al sharia ak alxaqiqa muy wax ak moom ba mu jóge fi ku defet ni mën na dee ànd ak keneen mënul nekk waaw waaw waaw loolu dëgg la kooku nag ku ko nangu la ca des woyof waaw ba tax na kon nag tabaarakallaahu loolu rekk la njaboot yi doon ñaan pour bu ñu ñëwee ñu sànni kàddu yooyu ci turu borom pas-pas yépp waaye ñu ñaan ñun ci turu daairatul mustarshidin wal mustarshidat ah. fukki at la ci ren nga toog sa togaay bu jekk ba fii ñu ni Moustarchidine dañu bëgg a tas kër gi ma engage ñi bokk ci yëpp ci pas-pas bi ni la bu ñu naree tas kër gi ñaanal yàlla ñun ñëpp ñu fekki góor gi fukki at ci ren ñun ña la ko waxoon ñu ngi ni toog yàlla seede ña fekke woon booba yàlla seede ñi fekke bu tey bi yàlla nee na dalika yowmul xaq booba ëllëg la waaye ñun pour ñun te sunu waat ga hada yowmul xaq ku àndoon ak yow ci dëgg rek mu ngi toog tey ci jataay waaw bu ko defee tabaarakallahu muy bëccëg bu mu ñu wóor ñun te nag waxuma la ne xam nañu la ba ñemewuñu la jay ñemewuñu ko waaye ñun ñi sax léegi yar nga ñu ba ñu rus ñu jay waaw kon nag dama la bëgg nga may ñu ñaan ci bëccëgu tey bi ci sa barke turandoo sa barke maam Cheikh El Hadj sa barke Serigne Serigne Babacar daayiratul mustarshidina bii yàlla defal leen tawfiq ba waxuma la Sénégal waaye adduna yëpp lii xeetu yiw di xeetu mbaax muy seen yitte di seen taxawaay ngir yàlla sa coono nga ñaanal ñu ko tey incha allah bu ko defee rek nag ah góor gi Malick mbay baal ma ndax ñoom ñoom moom daje bi danga ko daan def daan ko sédd sa njaboot Alaaji Njaase Mbay mu nga ca bammeel ya ñu ci sax di jaaxle jaaram ba mu fa jaar waxuma la foofa waaye yeneen bammeel yi ci des yëpp danañ ca séddu incha allah ko defee ñu sant góor gi Malick mbay ak Mansour mi topp ci moom sant seen famille yépp xale yi ñoo may yóbbante ni naa la wax ni la wax dëgg yàlla lu neex ci ndaw la moo am bàyyi bu ko def nawle ba noppi uuf ko waaw te góor gi Malick mbay woye na leen lépp sonalu leen lu ñu def mu ni baax na naa fi nekk di bég te loolu def na ko seen diggante ak ñoom kon nag ñoom ñëpp ñu ngee sant di bëgg la ngeen daan defal njaase ba tey nga ñëw defalaat leen ko ñoom ñëpp dañu ni bu fekkoon ni tey grade du wëllëre danañ ko tappal nit ñoom dinañ la ko tappal xam ni yàlla na sàmm wëllëre waaw ba tax kon nag loolu rek lañ ñu woon ñu jiital ko ci kàddu yi ci seen tur xam na suñ Pape Malick dana la wax kilifa yi fi ne wax la ñi sonn ci yëf ndax danga nga ma waxoon ma wax ko tanoor tanoor itam joxe instruction yëpp toppal ko boppam ba démb bi ma ñëw maa ngi fekk ñi mu yebal pour ñu seetal ko ba dara manqué mu ni dara taxul mu def ko jàppe na la bàyyi te ba mu ànd ak ba léegi nag ndam rek la ci gis waaw mu ni kon nag nga ñaanal ko yàlla te jàpp ni sa doom la lool la ma yóbbante démb wax ko Fadal Amar ni na la ko wax nee woon na it mu ngi ñëw bu ñëwee rek nga sànni ko ñaan nee na ndax kilifaam dafa am lu mu ko sant waaye foog mu ñëw rek ba nga xam tollu nga ko noonu tax na tabaarakallahu sëriñ Pape Malick kon dana wax li ca aju ci yooyu yépp ñu jox ko kàddu gi sëriñ Mansour moo daan jël balaa sëriñ Pape Malick jël dafa nekk ci ay yitte waaye fu ñu nekk rek mu nga fa kon nag ñu joxal ko bàyyam suñu Pape Malick mu waxaaneel ko wax ci turu kilifa gi ñu bàyyi yëf yi ci boroom ñu taataan yal nañ ko jëriñoo la bañoo wasalaamualeykum wa rahmatullah assalaamu aleykum Seyid noo ngi lay nuyu di ko teg ci nuyoo suñu mbokk sëriñ Moustapha ñoo ngi lay ziyaara di ko teg ci ziyaaraam ñi ngi lay ndokkeel di ko teg ci ndokkeelam fa tabarakallahu di nuyu ñi fi teew ñépp dikk fi ngir yàlla ak yéene ngir yàlla ak wuysi ngir yàlla ak bokk ak nun bëccëg bi ndax bëccëgu yiw la fa tabarakallahu mu mel ni itam dafa am ay kilifa yu fi ñëw mën naa wax ni réew mi yépp këru diine gu nekk yàlla dogal na am na ku la fi dafa am rekk ku nu ci jukki tudd ko doonte la sët la tey bëccëg bi mbooleem koo xam ni ci kër sëriñ Touba nga bokk moo la fi teewal tey muy Serigne Aliou Mbacké di doomu Serigne Cheikh Mbacké mel ni itam sëriñ Abdul Aziz bu sëriñ Baara Mbàkke mi ngi fi mel ni itam mbooleem famille yu diine yi nekk ci réew mi kenn ku nekk am nga ko fi yebal waaye bu fekkee ku nu ci tudd sëriñ bi jóg taxaw dafay diis ci moom ndax yéene moo toll noonu ci ñoom mu mel ni kon ñi nu njëkk a tudd yóbbaale nañu ñi ci des ñoom ñépp kilifa lañu boroom cër lañu Sëriñ Abdul Karim Mbàkke di doomu Sëriñ Fallu nekk fondateur du mouvement Makarimal Akhlaq defe naa mel ni itam sunu doomu bàyye ngi di sëriñ jibi combaan di doomu sëriñ alfa combaan <laughs> lii famili famiyu sunu sering Serigne Abbas Sall famille sëriñ Sàkko Mbàkke bu sëriñ Murtaba Mbàkke mi ngi fi sëriñ Cheikh nee na ñi ko tax a jóg ñoo moom yëf yi yëpp ñoo ko moom bu ñu noppee ci njabootu diine yi ñi ngi sant responsable politique yi fi teew ak parti boo mën a bokk waaw tabarakallahu ñoom ñëpp nyom nyom ak parti boo mën a bokk ñi ngi lay sant ci turu sëriñ bi moom moo leen di soxna may mbàkk itam ni Serigne Abou Mbacké bi fi représenté Serigne Modou Kara Mbacké moom itam ni barakallah mel ni nag fa tabarakallahu nuyoo yépp àgg na cant yépp àgg na waaye dafa am ñoo xam ni bëggunu sax ku leen tudd ngeen may nu Nous eggale baati cant yi jëmoon ci ñënu mu le gouverneur de la région de Thiès ak ay collaborateur am région la waaye ci biir responsable politique le ministre d'État Ousmane Tanor Dieng représente le président de la République Abdou Serigne Alassane Aidara mustarshidiin wal mustarshidaat ku ci toog ci chaise wàccal jox ko gan ci ndigalu Serigne Moustapha وأدينا دينا تبارك الله ngeen may nu déglu tuuti ñu mottali li nu doon wax jox sëriñ bi mu waxtaan ak yéen waxtaan ak kilifa yi fi nekk maanaa dafa des ñaari baati cent mu jëm ci ñi joxe matériel jëm ci ñi defar yoon yi oto yi mën fi jaar ak nit ñi ñu wax ni dinañ ci tudd ñaar